loolu ngi lay waaw ah, ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax ah, maa ngi tudd Cheikh Baye Góor Lo. si Cheikh Baye Góor mu mel ni liggéey bi nga ko tàmbalee léegi tey la ñetti fan loo ñu mën a wax ci waaye liggéey ak bi mu dooree léegi. waaw alxuraan moom bokk na bari na ci liggéey yoo xam si tudd na ko mu ñëw ci euh, musxaful murattal jëf ji bokk na ci jëf yi nga xam bu jiitu woon alxuraan bu dëggee tudd ko ndax benn mooy tawsiya mooy mbirum yaatal. Ousmane Ibn Affan bi mu dikkee li lim njëkk a def mooy yaatal yaatal ba nit ñi mën a kenn ku ne la nga mën a am nga nga jariñoo ci te ci lu dul lore loolee mooy jooju euh, lislaam daa doxee sëñ Tuubaa ci la nekk ba léegi ñii nga fi gis nag it ñoom euh, li ñuy sàkk mooy lu lu yeneen mbooloo yi baaxoo daje te duñ ko am mu yàlla yàlla ji ñuy sàkku nag moo tax tey mbooloo mii nga gis kenn ku ne jugee ci ay barab yu fasanti ko yu nuróo te bokkul li ñuy am nag mooy euh, li ñu jiital mooy la sëñ Bay Jaxate waxoon rek bàyyi la bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggali añ baykat bu ñuy toggali añ nay tëwoo rek mbayam murit nag lu dul ak bàyyi ko te soññ boppam waru ko yow jébbulul te bàyyi ko ngay sab sëriñ aw ndigalam ah, ndigal li nu sëriñ bi jox boo gisee kilifa yëpp kenn ku ne ñëw Euh, te xam ne mënuñu koo muñ mooy la sëñ Bay Jaxate waxoon ne bul muñ muñ sab sang donte saala sax muñ muñ lu sab sanga bon day wàññi sas ndoole koo xam ne am na la am say nawle soo ko muñee mu fa sa cant jox say nawle ngay xoole euh, suñ cant gii nga xam ne moom loon am mu jëm ci yàlla ak yonent bi jaar ci sëñ Tuubaa loolee lanu ban sëriñ bi jox ko suñuy nawle nuy xoole kon nag dëkk la boo xam ne euh, maanaam lim gënee dëkk yi bari na mooy la awa ah, waxkat waxkat ba waxoon ne réew gënewul morom ma jor gu tàlli ngir waaye dëkke ñaay gënante góor ñu làq mbir kon Touba gi lim gënee ñeneen mooy Cheikh Mat Bamba mi fi nekk moo moo gën keneen ku dul moom. waaw lislaam xam nga boo xoolee ci ni mu jëlbee njëlbeenoo dafa mel ne ci rayante la jiitu rayante euh, ak ak dóorante dafa mel ne bokk na ci ci histoire yu ñuy yu ñuy wax ci lislaam ñu bari ñàkk seen i bakkan waaye ba mu taxawee dañuy xam ne diine ji diina diine diine nasiha la yonent bi wax ko ne diinu diinu nasiha xul naa li man lillahi wa li rasul kon loolee la sëñ Muntaxa nekk mooy yaatal gi day nuru ak yàq ndax bari na nit lu ñëpp moom bu ca kenn jëlee lu moomut euh, bu bu koy seeni borom jël si day mel na lu lu métti te kon lii dafa nuru lu métti te ndax kii dëkk bi ab dëkk la boo xam ne si dafa am borom euh, li may wax ni bëri na ci yeneen dëkk yoo xam ne si ay article li dox joxe ay argument fii daal ku am lu la naqari ci lii wala nga am ci lu la ci met jugal nag te dem sa dëkkum maam ndax dëkk bii nag dëkkub Sëñ Tuubaa la moo ko sanci moo fi def li mu fi def moom lañ fi ñëw di ko siyaare ak képp ku ko nangul waaw ñoo xam ne nag saa su ne suñuy yeewu ci seenub lal ndigal lañuy ñu xaar ñooñu moom xaaruñu lan ndigal nu mu ñëwee rek te jógee ci sëriñ bi ñu jëfandikoo ko yatt yii nag moom ñoom dañ ko jiital ci seen seen mbir mooy euh, la sëñ bay Jaxate waxoon ni ñi nga xam ne dañuy mer ci def defar gi gi ñuy defar loolu seen bopp la ndax murit dëgg bul mer te bul jàpp mer mer ak jàpp mer day alak am murit meral say ayib ayib ji nga defaree lii ba nga xam ne neexul sëriñ bi meral say ayib gërëm sa sëriñ di daw nemmatam yow ba am say murit te jamok fullu yi yetta bon jigul rëbbakub dag jigul am murit ku am ñett yi am ñett ngërëm barke wërsëg yi li yëgal lii murit kon lii sëriñ bi kii ku ciy jaay fulla wala mën a wax wala wala wala wala engagé ay responsable ba ci di ci wax loola jigul rëbbakub dag jigul am murit ku am ñett yooyu du am ñett ngërëm barke wërsëg yëgal lii murit kon daal euh, nañ tàmbali ci mbirum sëñ bi yam képp it ci mbirum sëñ bi te it ku ci wax nag loo xam ne si manees na laa dóor ndax wax dafa jafe mën a wax ak bëri wax ak rëyu lamiñ daa nuroo te bokkul bari na ci ñoo xam ne si ki mën a wax day wax njariñ mu jariñ ko jariñ bokkam mu noppi ki rëyu lamiñ day wax mën naa wax ba wax njariñ duñ ko diglu ndax day tànkal nit ñi ki ki ki bëri wax nag day wax ba wax loo xam ne si euh, mën naa dugal boppam wala mu dugali bokkam kon nag euh, sëriñ bi li muy diggee euh, bu amul kenn ku ci am xalaat alquran dafa waxoon ne wa man yataxadda xududallahi faqad zalama nafsa li yàlla protéger ku ko jaar yaa tooñ sa bopp wasalaamaaleykum